non c'était pour Thiat oui. justice boobu doo ko doo ko am ci doo des moom loolu c'est clair. sa rêve bi di nga ko di nga ko postpone di di nga ko. différé non ko différé à un au moins bu deux mille vingt quatre. mais quatorze mois des moom ton rêve la sera un cauchemar. beneen bi mooy. pourquoi bi waaw beneen bi mooy. dama gëm ne procureur de la République sur une question aussi importante mosuñ ko gis mu auto saisir il ne s'auto saisit que bu nekkee article la. aka gaaw ci auto autosaisiru dem jàpp ñoom Karim Xurum Xaq ñoom Cheikh Oumar Diagne dem jàpp ay benn booy bu def like ci Facebook dem traquer ay nit dem jàpp ay femmes ñëw ne leen wéy vous êtes les forces spéciale waaw force spéciale yaa ngi nii nag ak seen ay arm kay jàpp ñi procureur ñëwal nga autosaisiru ci force spéciale yii nga xam ne dañoo commandé seeni gànnaay ci benn wéyu indi ko ci mim réew te xamuñu fu mu jaar ñi ñooy force spéciale nga jàpp ay doomi Sénégal tëj leen ci kaso bi ba tey ña nga fa génnewoo leen tegoo ko ci dara donc man yaakaaruma ci procureur pour mu def ko li ma kontaan kay mooy aujourd'hui on a une assemblée au moins bi ma gëm ne quatorzième législature bii ni muy amee ci ay taxawaay dina rectifier li tax sénégalais yi jéppi député ci réew mi dina redresser la barre dina redresser image u assemblée nationale loolu laa ci doon xaar moo tax gis nañ ko kon alhamdulilah la ñuy wax nañ ko continuer te bu mu yem ci biir dossier na yem ci dossier yëpp nañ dem ci dossier yëpp donc ça dafay indiwaat rôle lu assemblée day placé waat day tax assemblée mbedd mi toog xam man tey su ma gisee enquête parlementaire sur cette question la daf may soulager parce que dama am ay yitte war ko dox bu ci enquête parlementaire amul fii laay toog di ko marche di ci daw di ko marche di ci daw te bu fekkee ne assemblée bi mi fi di liggéey rôle mais vraiment Omar man damay dem dóor samay sound dóor sama yeneen affaire te loolu moom ma gënal sincèrement loolu ma gënal alors sëñ Saliou euh, configuration assemblée nationale bu bees bi est-ce que mën nañu ci am yaakaar que ne enquête parlementaire bi nga xamante ne euh, déposé nañu ko ci mën na aboutir à quelque chose non ça doit aboutir parce que xam nga c'est pas un problème de camp politique mm-hmm. c'est un problème national mm-hmm. c'est-à-dire qui concerne la sécurité nationale Et je crois qu'aujourd'hui, les députés de la majorité comme les députés de l'opposition, ils ont intérêt à ce que vraiment cette chose-là soit tirée au clair. Donc, man, gismo fi tay lepp lo xamné war nañ ko fu def bon en tout cas du côté de la majorité pour wax ne les gens on ne doit pas mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire am nañ ci la latitude et je crois que loolu dina dina aboutir et loolu ce sera au grand bénéfice aussi des Sénégalais parce que mbir mi lëndëm na lëndëm goo xamante ne nii mais il faut qu'on le clarifie déjà il y a une position gouvernementale je crois que il appartient maintenant à l'Assemblée nationale d'apporter une lumière vraiment sur l'histoire de ces armes-là et que aussi vraiment je ne sais pas armes dans les normes ça devait être réceptionné mais est-ce que ça a été réceptionné loolu aussi il qu'on fasse de sorte que l'armée puisse mettre la main sur ces armes-là. Bien mhm. sûr. loolu moom ce serait extrêmement grave qu'on donne ça directement au ministre de euh, comment dire au ministre de l'environnement armes yooyu ces fusils d'assaut et ces un million de munitions là na ci ministre de des forces armées tël ci loxoom ba ñu saytu mbir mi ba pare maintenant tout ce qui est ay citernes à eau ay tracteurs et bon ça c'est pour le bon fonctionnement du ministère je crois que loolu mën nañ leen cet argent la est-ce qu'il n'y a pas une surfacturation parce que le gars en, la matière moom c'est un expert ci domaine boobu moom lu muy def te moom surfacturation presque le double lay lay def le double fu mu dem moom fu muy surfacturer rek il fait le double bon jàpp na ne Niger mu dëkk surfacturation du fa dégg mais Sénégal nag vraiment surfacturation dégg la te li nga xamante ne moom lañ gën a ci matériel te li ci gën a grave boo xoolee même dans le contrat on a énuméré l'ensemble des des matériel mais en réalité on n'a pas donné euh, joxewuñu prix yi dans les détails dañu joxe matériel rek daan ne ci suuf ñu def 43 millions milliards euh, non 45 milliards 300 300 millions rond comme ça rond rond rond c'est extrêmement grave rond c'est-à-dire oui oui non <coughs> en fait loolu loolu mooy manque de transparence parce que fekkee ne da nga ne da nga bëgg lu leer da ngay da ngay énumérer lépp joxe chiffres yi au détail unitaire mais bizarre quoi man vraiment cette histoire là il faut que ça soit tiré au clair. vraiment assemblée bi moom. seen premier acte ko leeral. seen premier acte bu ñuy posé. Mhm. mooy nañu leeral l'achat de ces armes là. et que aussi le président de la République ñu dégg ko ci mbir mi aussi parce que affaire bi c'est sérieux c'est un problème de sécurité. c'est un problème de sécurité armes yooyu fi ñu toll nii kenn xamul ci loxo yi kan lañ mën a teere ji sax. et je crois que dans une république. il y a que l'armée qui moom moo lépp lu jëm ci biir armée am armée euh, comment dirais moom moo ko war a saytu te mbir mi ni mu demee nii affaire daal lëndëm na. lëndëm na alors lëndëm surtout ki nga xam ne moom lañu ko seexal moom. kooku moom mais mais mm-hmm. ñu dalal suñu xel aussi su nekkee ministère des des de l'environnement moo def commande bi même su nekkee amul comme comme d'après ce que les gens disent amul droit def euh, def commande par rapport à cette question la mais nañu dalal suñu xel xam ni les eaux et forêts aussi qui sont à l'intérieur du Sénégal ont besoin de ces armements là. non non ils ont besoin d'armes non non ils ont besoin d'armes mais ñu xel. non non non xam ni si ces armes là. Ah, non mais non pas besoin de fusil d'assaut si ces armes là ont été livrés. ça sera livré elles seront livrées ils seront livrés au niveau du ministère des des des. mais 43 milliards pour les eaux et forêts non attends c'est-à-dire moi je parle. non non attends c'est-à-dire dafa am dafa am benn dafa am benn dès le départ non non non. dafa am bis non non baax li ma la dafa am yoo xamante ni man du ma ciy sur les milliards et autres s'il y a des problèmes le président doit sévir. mais mais mais aujourd'hui je pense que au delà aujourd'hui parce que ni nga ko waxee euh, kuréel la goo xam ne ministère boo xamante ne ñi fay liggéeyee dañuy soxla am outil. parce que fi ñu nekk la sànq wax nañu trafic illicite de bois bi ak yeneen. Ah, mais type d'armement bi nga xamante ne amuñu les détails sur les préciser ces soupçons de corruption. Adama ni muy doxee. fi ma dama lay préciser rek cest à muy doxee dama ne la c'est-à-dire ministère des forces armées moom chaque fois qu'il y a commande moom moo dafa xam lu mu wax day laajte yan type d'arme la ngeen bëgg ak quelle est la destination fi may waxee mooy fi may waxee mooy xam nga da nga ne xamul xamuñu arme yooyu fan la ci yoxo lan lay mujjee moi je ah. dis man man ma ne dañu a dalal suñu xel puisque c' est le ministère de l' environnement moo def moo def commande bi normalement c' est cette livraison devait se doit se faire au niveau du ministère. Ah, mais mais mais ah, une commande a été déjà faite autorisation ou pas une commande a été déjà faite. mais pour ce matériel. non non si mais dëgg dëgg nag matériel boobu aussi c' est l' armée c' est pas le souverain. moi je dis une commande a été déjà faite. et la livraison devait se faire au niveau du ministère de l'environnement man foofu laay waxee n'est-ce parce que ñoom ñoo def seen commande ñoom la ñuy livrer n'est-ce pas donc nit ñu dalal suñu xel ci loolu maintenant la question mooy manière bu ñu joxee marché bi est-ce que war nañ ko joxe wala am ñu ko doon joxe il faut soutenir les responsabilités et apporter les sanctions nécessaires. alors c'est clair et aujourd'hui le débat parce mhm. mhm. ko dindi ba mu set. alors teg fële man loolu la. alors c'est clair et alors Saliou Joseph aujourd'hui le le débat c'est pas c'est euh, rek li nga xam ne mooy type d'armée aujourd'hui on parle des prix. c'est-à-dire détails yi nga xam ne amuñu ko ci ci prix yi nga xam ne wax nañu ko pistolet semi-automatique munition fusil d'assaut formation au pilotage euh, au pilotage de drone ay jumtuwaay yoo xam ne kenn amul ci benn prix boo xam ne taf nañu ko ci mu leer je pense que foofu moom mooy problème bi foofu moom moo war a leer est-ce que euh, ci mu leer dafay yegg ci président de la République prononcé wu sur la question. xam nga li warta am déjà li warta am moom la ñuy njëkk a sanctionné xam nga bu ñu naan pratique bi dafa warta nekk jëf ji dafa warta nekk ba pratique bi di am ñoom waruñoo jënd bay leeral ay prix je pense que ñi war a jënd mooy ñi nga xamante ni si la loi daf leen ko jox ba pare ñu am secret de défense boo xamante ni si daf leen muural mbaarum kiiraay beneen bi ci dolliku mooy li ñuy xaar tey jii nii ci assemblée nationale bi mooy ñu ubbi enquête parlementaire daar daar mhm. ànd ci ak ñi ñu ci war a àndal parce que maintenant au Sénégal même notre président de la République n'est pas en sécurité dès l'instant que ay ngannaay dugg yoo xam dañ leen a laaxaale ca ay citernes yu ñu jënd ay brouettes yu ñu jënd ay tricycles yu ñu jënd boolewaale ca ngànnaay yooyu noonu nous sommes en danger parce que ñi ko war a jënd déjà buñ ko jëndee am na lu jubadi xamante ni si taxaw na foofu noonu donc nous sommes dans un pays où nous sommes nous sommes dans une ceinture de feu de position actuellement <coughs> et ñu am fi gaz ak pétrole ñu jub ay élection aussi bu ñuy jël référence rek dañu naan da ngay xool ci Alassane Dramane Ouattara bi ñuy euh, bi nga xamante ni réewam élection yaa ngi fay jub si ci troisième candidature am ñu naan les microbes de de Ouattara ñu leen di équiper ay coupe coupe di leen équiper ay ngànnaay par yenn saa yi ñu gis manifestation ay nit dee du ñu xam euh, balistique yi du ñu xam ban bala leen faat du ñu xam ndax armes yi ils ne sont pas répertoriés donc il y a un danger notoire ci loolu noonu que l'enquête se fasse et que le président de la République euh, rende compte au peuple sénégalais bi nga xamante ni si dañ ko confier des responsabilités non seulement pour ñun mais pour sa propre sécurité parce que du jour au lendemain bu ñu fàttalikoo le syndrome de Ahmed Khalifa Niass mhm. jamono bi ñuy wax waxu coup fii nii ci biir Sénégal naan ay ni dugg nañ fi libyens yi wàcc fii nii ñu takk leen ñu wàcc et tout cela y des armes yu ñu waxoon ni mu ngi ci biir ñu wër gisuñu ko mais bii nag c'est l'organe qui ne devrait pas être habilité alfaire ci l'a fait kon du ñu wax sax waxu prix dañuy wax ni nañu leen topp ci ñàkk a war def gi ko war a def et que l'armée euh, que qu'on à l'armée du Sénégal de saisir ses armes mm-hmm. surtout ba pare ñu sanctionner l'auteur de ces faits Et je salue, euh, je loue euh, cet acte de bravoure que mes confrères d'ailleurs ont, ont, fait euh, de cette enquête, voilà, qui, qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir ces renseignements-là. Parce qu'un pays ne doit pas fonctionner comme ça. yoruñu buntu boo xamante ni si li ñuy wax ko sa jabar du ma buntu kër seen wéy. alors euh, en tout cas ce qui est important actuellement. Mhm. c'est l'enquête parlementaire. je loue au moins parce que maa ngi door a yëg ne Abass Fall nationale mais je pense que tout juste après le marathon budgétaire gars yi war nañ jël ay dispositions pour xeex affaire bi parce que lii moom lii moom xaw lan mais lii moom il faut que la lumière soit faite sur ça ça moom c'est indéniable franchement et je demande à tous les leaders de ce pays sans exception qu'ils se prononcent et qu'ils fassent des communiqués pour que la lumière soit faite. alors merci merci beaucoup Adama ñu bàyyi la nga tàggatoo. Oui, euh, euh, euh, par rapport à cette question, je, demanderai aux autorités de mettre à l'aise le président d'Afrique par rapport à cette question-là, surtout. De mettre à l'aise le chef d'État, le chef de l'État, le président d'Afrique, Macky Sall. Parce que man, dama ko def sama biir xol bi te dama ko gëm te bëgguma dara lu entaché sa gestion. Donc par rapport à cette question-là, muy député pouvoir ak majorité ñu def seen liggéey ba ca war surtout les responsabilités su nekkee dañ dañ ci dañ dañ dañu def li ñu warul def yoon dal seen kaw quoi man loolu alors Thiat merci d'être venu ñu baay la nga tàggatoo. ooy merci Fatou en parlant de député aussi ma jaar pour wax rek ne projet de loi bi ñu fi yóbbu pour wàññi seen pour ñàkk leen jox ay oto. bëggoon nañ ci waxtaan bi. loolu dafa doy waar. Mhm. soxor la ko loolu mën man je pense que soxor la ko euh, parce que euh, parce que yàgg nañu am assemblée am nañ yeneen organes yoo xam ne yeneen yeneen institutions yu budgétivores yoo xam ne ñu wàññi fa. mais ñu mel ne député yi nga xamante ne ñi ngi fii nii tey pour ñoom politique rek bu ñu leen joxe ay 4-4 xëy na suba dinañ ci campagne ak yooyu non nos députés doivent être à l'aise pour mën a def seen liggéey nañ leen jox les conditions yi war pour ñu mën a def seen liggéey ni mu waree et ça il faut que sénégalais ku xeex ko parce que député ñun ñoo leen fal. pour ñu dem représenter ñu di dem ci ay gox ak ay goxaat qu'on les mette dans les conditions idoines pour ñu mën a def ce travail là. alors temps temps non non non non non temps bi jeex na non non mais temps bi jeex na vous vous allez on on on en reparle je suis vraiment désolé Adama oui à trente secondes alors. quoi c'est-à-dire il faut qu'on éclaircisse la lanterne des Sénégalais n'est-ce pas amul benn député bu ñu taxaw ne ko dañ koy xañ otoom. on met dans son salaire une indemnité qui lui permettant moom mu tànn otom bi mu bëgg jënd ko non de sept cent mille francs non dama ne cest dire li nit li nit ñi xamul li nit ñi xamul Abdou euh, Omar li nit ñi xamul non non non non non dinañ ci waxaat alors dinañ ci waxaat. alors dinañ ci waxaat. dinañ parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. le carburant le carburant des ministres et autres dañ ko def seen biir salaire kenn joxatul carte ak nangam le téléphone des ministres amul amatul crédit bu ñuy def ci téléphone dañ ko def seen biir salaire. l'indemnité de lo euh, les logements amatul dañ ko def seen de logement seen biir salaire. mais mais, mais ces là alors. non ces indemnités euh. beaucoup plus cher que millions. alors pour rationaliser est-ce que war millions de francs CFA quand même pour bu ñu. les voitures coûtaient beaucoup plus cher que 42 millions. mais mais amaana est-ce que du woon solution ñu c'est pas c'est pas le débat. on le temps li ñu cëralee woon jeex na. na. lu ñu cëralee woon jeex na gi na dawal oto waay. nañ jox gi oto mu dem def alors avec 700000 francs nit na dem ci concessionnaire jënd oto bi ko neex. alors Adama on aura le temps la prochaine fois ñu wax ci. c'est l'objectif nañ bàyyi gars yi ñoom ñoom ñoom Karim ñoom euh, Cheikh Omar jaañ ak toutes toutes ces personnes ay sénégalais yu ne fii ci réew mi ça c'est une demande quand même qu'il faut faire nañ leen bàyyi ñu dem seen kër yi parce que mi ngi bëgg a yàgg dinañ ci def lu ci war nag dañ ci taxaw taxawaay bi ci war. on va continuer à marché a manifester mais nañ leen libérer il faut libérer ces otages politiques ñii defuñ dara ñii duñ force spéciale amuñu arme amuñ dara nañ leen bàyyi ñu génn. alors Adama oui. Euh, fi caat daanalee rek lay lay lay lay lay jëlee pour ñu bàyyi ñooñu parce que pap Amadou Seck bi ñu jàppoon mu rëcc est un agent des impôts et des domaines c'est un fonctionnaire de l'État moom lañ tiimal tey ne terroriste la le Pape Amadou Seck boobu ñuy wax. donc euh, ñooñ nañ leen bàyyi ay Ousmane Diagne ay Papito Kora nañ leen bàyyi ñu def lu ñuy def parce que lu ñuy def day participer ci démocratie Sénégal bu loolu weesoo également suñu fonds de dotation yi ñun mairie suñu fonds de dotation ak suñuy fonds d'équipement des collectivités territoriales bu léegi jotuñu ci on est à deux mois de la fin de l'année mais lan moo tax parce que les plus grandes villes sont gagnées par la coalition Yewwi Askan ba léegi ñun mënuñu jot suñuy fonds

il faut que ñu am élégance ça n'empêche pas de travailler. il faut que ñu am élégance il faut il républicaine. bu loolu weesoo man damay remercier Abbas Fall lu mu def. di remercier aussi docteur Cheikh Tidiane Dieye si veille bi nga xamante ne moo ngi koy def. CEDEAO ba Aïssata Tall Sall bañee signé charte bi si jour bi nañu am document bi mu jógee bi CEDEAO ñëw suñu plateforme ñu def si conférence de presse def si li ñu war a def affaire yi tamit. def nañ si li ñu war a def maanaam taxaw di alerter di veiller à ce que la soit respectée ñu bàyyi ñi nga xamante ne tëj nañ leen Papito Kara Ousmane Diagne. c'est clair alors très bien Pape Amadou Seck ñeneen nañ leen parce que démocratie moo ñu ñor Sénégal moo ñu ñor. alors très bien Serigne Saliou. waaw di remercier Sénégalais yi rek di leen jox rendez-vous vendredi prochain. incha ci li nga xamante ni si tey inauguré na ko mu doon un citoyen modèle tey jii ñuy xaar fu baree bari sénégalais yi ñu ci góorgóorlu bu baax a baax a baax ñi nga xamante ni si ay homme d'affaires lañu te yàlla may leen kattan ñu góorgóorlu ubbi ay entreprise yoo xamante ni si dina permettre à que ñu créer ay emploi tey jii ni ko président Bougane gee Dany defee ba créer la maison créer yeneen mbir tey président Youssou Ndour def ko ñu koy njukkeel bu baax a baax di ñaan jàmm topp ci et puis revendication lu waa Kaolack di réclamer muy marché bii nga xam ne waroon nañ ko def Medina Baye te ba ñu ko tegee xeer ba tey jotuñu ci gàmm gi di fa am ñuy am ay jafe-jafe ñu bàyyi leen ci xel di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp. merci beaucoup mënuñu mënuñu tëj euh, félicité wuñu euh, euh, champion bi ci soccer Sénégal ñu ngi leen di félicité bu baax a baax. Ah ci ndam loolu nga xam ne am nañu ko tey mu doon ndam pour Sénégal mm-hmm. Lille mu doon encore sacre boo xam ne jox nañu ko ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di leen féliciter di féliciter également toute l'équipe di remercier Adama Fall moom moo fi teewaloon coalition Benno Bokk Yaakaar merci d'être venu waxtu wi xatoon na bi ñu lay woo euh, parce que Farba Senghor la ñu waroon finalement amuñu ko nga te nangul ñu ko ci plateau bi merci à Thiat également d'avoir accepté notre invitation euh, Adama Sarr bokk ci avenir Sénégal bu ñu bëgg remercier la Serigne Saliou Saliou Joseph Oumar jeudi prochain ci beneen Ndoumbelane jaa ngeen jëf.